tey ñu ngi ci ngénte Balla Gaye bi ma taxaw ak kenn koo xam ne nag mën naa ne suma jumeau la suma xarit la suma frère la muy Aliou Mané Aliou Mané euh, euh, lan moo war a sa teewaay ci bisu Balla Gaye bi tey. waaw Faral kon li may wax léegi rek damay sant yàlla bu wér sant suma ñaanu waajur di leen ñaanal yal na yàlla yërëm leen xar leen sa si àjjana fi daw si. waaw lii ma ñëwee nii nag waa suma mag la ñëwal suma xarit a en tant que mbër en tant que deret moom yaayam suma yaay. ay mokk lañ moom su ma moom mag ndijaayam laa sax laa mën a wax. moom Balla Gaye waaw ndax yaayam suma mag la. waaw loolu nag te kon kon li may faral di wax rek bu muy bëreeg Tyson lu ne wax naa ko ko. ma fekkee nag fekkee naa loolu. waaw bu muy bëreeg Tyson lu ne wax naa ko ko mais dafa xam ne tamit sportif la. Hmm. tey mënoon na nekk si géew bi saaga ma wala mu def ma neneen nenoon benn wax bi simple la ma wax rek mbër pare naa. loolu jikkoom la. waaw kon nag loolu dañ loolu man la si lool laa ko jàppee tamit. waaw musuma taxaw si télé ne Balla Gaye suma moo ko la du ñot di benn affaire bi. amitié mais deret du fen parce que yonent bi deret du fen su ma mbokk la moom xam na loolu man xam naa loolu te suñuy famille xam nañ loolu man mii xam naa loolu ndax nit ku baax la te yàllaa ma tiim te saa su ne day wax ci yow lu rafet ñoo bokk benn koñ muy suma xarit ah, sama diggante yow nag yàlla laa ci jël seede waxoon naa la ko ci safar gi te naa la ko waxaat ah, nit ak taalibe laa ko jàppee xol li des sa carré yàlla nañ mbégte waaye li Aliou def dafa rëy dëkk bàyyi lépp ab ñëw ci la bal lan nga yëg waaw kontaan rek mooy lim la wax rek man bu mu dee jëli sama kayit sama kayit judd Pikine la nekk nekkul Guédiawaye de Pikine la nekk. loolu kon loolu kon ngeen déggaale ci loolu bala genn wàll kenn wàllam Pikine la ndax fa la daanaka Pikine la juddoo ndax. c' sama essai Pikine la nekk bu ma dee jëli Pikine laa koy jëlee yàlla dogal na ma am fay nit am fay xarit doo ci na moom ki mel ne Ama Baldé ñoo ñëpp. <laughs> Ahmed Fall yow da baax yow da nga baax sa liggéey rafet na vraiment ñu ci sant di la gërëm mais na leer ne daal ki mbokk la xarit la nit la champion la lépp loo xalaat lu nit di jàppee nit rek jàppee naa ko ko ndax xolom bu rafet ak yéen ñëpp jàmm mosoo ko dégg ci ay coow mosoo ko dégg ci ay wax lu mu am ak lu mu ñàkk la boole sante ko suñu borom dara gënta metti ñàkk ndey ñàkk bàyyi kon lii nii yëpp ay détails la wallahi milliard boo ko amoon tey doo ko am tom satisfaction bu neex te ñàkk nday ñàkk baay moo gën a mett loo gis àdduna mu booleeg li ko lépp nag sante ko suñu borom kon lépp li nga xamante ne suñu borom rek jagleel na ko doomu aadama mi lu baax Aliou Mané yàlla na ko am ci barke bi sallallahu alayhi na ko am ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga li Balla Gaye wax sa jumeau sa xarit sa doomu ndey ndax deret la li ma naan lu dagg moroom lay fekkee lii dafa neex kii ngi bàyyi koo Pikine kii ngi défendre couleur Guédiawaye waaye réew mi la te lépp Sénégal la c'est Sénégal kii gañ yàlla na jàmm yàgg yow nag li may wax rek sa sa doom ji yàlla na jël ay jikko turandoom ci barke yonent ndax ki nga ko tuddee nag la muy Serigne Saliou borom jurul borom njàppandal borom dookaan borom umul xuraa borom juróom ñaar daara ca ngaaba ki ne jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom li sëñ Bamba daan def ci mag ñi Serigne Saliou sangu Cheikh Béthio amati nga ndam de yàlla na ndam li sax te yàgg Aliou looy tàggoo waaw sant yàlla bu a wér rek waaw ndax lii nii xol sedd na tamit waaw tey ñëw nañ mu dalal ñu. waaw te lii lañ ko xamee tamit. loolu lay def jikkoom la. waaw kon nag maa ngi koy ñaanal fan yu gudd. amiin moog njabootam yëpp muy papaam muy yaayam. ak soxnaam tamit. Mhm. yàlla na yàlla suñu borom boole. waaw suñ Saalum mi yàlla na dund ba koy yóbbu ay màq di dem di ñëwaat. waaw loolu lañ koy ñaanal daal si barke borom Tuuba. amiin jërëjëf kon Malick ñi leen lañ koy toppalee ci ngéntali te cant la daal bi Sëriñ Saaliw la nan cant rek. <laughs>